fii si biir euh, siège bi xool nañu def nañu déjà ben documentation bu nu bu nu seetaan mais ensuite dem na sur le terrain gis euh, lan mo fa lan mo fa am gis nañu par exemple foofu ñuy exploité mines yi su liggéey bi paree ñoom am na nu koy fexe bay delloo ko pas nu mu meloon mais aménagé ko ba nga xam ni dana mën a am ay garab dana mën a am yenn plante yi nga xam ne ni mën mën koo liggéey euh, loolu lu am solo la pour nun xool nañu aussi nii entreprise entreprise yu si ëpp entreprise yu jóge yi si yi la euh, ensuite euh, su fekkee emploi yi yu bare fii la jóge wala su en tout cas su amee ñaari nit ñu am euh, même qualification ku dëkk fii moom ñuy ëpp chance am que que yu mel ñu vraiment moo trop ñu aussi ak maire Euh, gis ni déjà am na benn fondation bu ñu créé ñoom fondation boo xam ne pour dimbale nit ñi rek la fondation Sococim xam tamit dimbale nit ñi rek ak lu mu ñoom Sococim lu ñu liggéey maire yi kontaan si trop euh, comme yu ko Sow mooy PDG fii Sococim mais aussi mooy président chambre des métiers yi am na waxtaan ma nga xam ni daan ko waxtaan suñu convoqué euh, entreprise société minière yëpp ñu gën a waxtaan xool lan la état bi

Euh, le PDG de féliciter tous les directeurs tous les directeurs tout le personnel parce que l'une fille, fi lu juste gis quand même euh, euh, vraiment neex na gis parce que l'une, bu mel nii li ñu bëgg a gën a yeneen yi